Écoutez, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, de bonheur, parce que tout simplement, des jeunes de Thiès ont eu la merveilleuse idée d'organiser un concert avec un artiste de renom, Wally Balago Seck pour ne pas le nommer. Et ces jeunes-là me font l'honneur d'être le parrain de cette manifestation. Et c'est ça qui explique ma présence ici à Thiès. Et j'ai été très honoré d'être cité aussitôt après le président de la République et la première dame. Et je dois dire que ma présence ici également, c'est une façon de représenter le président de la République et la première dame. Parce que ce sont en vérité les parrains de la manifestation. Je voudrais donc exprimer un sentiment de satisfaction et remercier l'ensemble des jeunes qui ont eu cette merveilleuse idée d'organiser un concert de Wally Seck ici à Thiès pour clôturer pour permettre aux Thiessois d'entrer à l'année 2019 dans l'année 2019 avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter bonne et heureuse année à des Sénégalais, à l'ensemble des Thiessois particulièrement, sans les habitants de Tchadjaï, parce que Tchadjaï, c'est ma localité. Et je n'oublie jamais que je suis originaire de cette ville. Je vous remercie. grand noo tudd. Euh, El Hadj Diouf. El Hadj Diouf noo gisee concert bi. macha allah neex na trop wax dëgg yàlla kontaan nañ daal di bëggee waali rek waaw amuñu lu dul waali waali rek la am moom la ñuy tiitaroo quoi. ban heure nga fi ñëw. ñëw naa fi ay vingt une heures. 21 heures ba tey. reer sax defuma ko waale doo nga ko jaar barke Serigne Touba. soxna si. man mami laa waalee. mami noo gise concert. kontaan rek torop sax neex. bëggee. da ngeen a namoon waale. torop torop dañ ko nam bay jooy. ban heure ngeen fi ñëw. ñun ñu ngi ci ñëw 21 heures. Ah, reer ngeen. non reer na ñu waale ñun bu ñu bu ñu gisee waale suur nañu. bu ñu ko gisee suul nañu kenn dara fay waaw concert baa ngi nii daf nañ liñ si mën ça fait mois ñu koy pare di ko taxaw di si raw guddi di si daw bëccëg di def caravane di yëngal yàlla def tey jii ñu agsi ba si jour bi dañuy sant ñi ko indi muy laay Dieng ak Matar Samb ñu doon seen lépp doon suñu raq ñun nag ay faramaareel la ñun waa léegi lañ jëm si aspect waa la ñuy liggéeyal guddi di ko léyal bëccëg diggante population kees ñëpp wuy si nañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla képp ku fi ñëw nga ñëw si jàmm ñibbi si jàmm yàlla aar la taxaw la di remercier nag bu baax a baax a baax mooy pare yi nekk suñu ginnaaw ba pare nag Faramaren musique nag du yam fii nag day ñëwaat kees incha allah maa ko fi nekkal fii kees wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla taxaw bu baax a baax concert bi daal moo wax dëgg yàlla ku fi ñëw yàlla nga ñëw si jàmm ñibbi si jàmm man mu niru maa wax loolu merci salaamaaleykum mbokk maa leen ziare sama tur nekkul leen loolu Cheikh Tidiane Diouf ñu xamee ma Cheikh Waly donc tey fii dafay ñëw pour bégal gars yi xam ne Waly mu ngi ñëw ñu war fee toj instant bi xaar Waly ñëpp a namm Waly Thiès kaay si bopp am moo namm Waly parce que mu fi gëj depuis samedi précise ñu bëri amuñu woon opportunité pour mën a ñëw tey gars am nañu ñu ngi waajal yëg fii daal di fay yëngal tey 350 mille tey ñëw ma leen lu dul baate tey fii mënul bu naree yomb ñu bàyyi ko. ah narul yomb. barki Mawla narul yomb parce que Wally moo ñu bëgg ñu bëgg te yàlla def ñun ay faramaareen leen ñu diir keneen ak Kousa sa problème la mais ñu day yëngal ci kaw du yomb barki Mawla maa la te li tax ma def fii narul yomb parce que damaa war a yëg dama kaw narul yomb jërë ngeen jëf. ah, ah Pape Doumbia. directeur Prestige Thiès nan nga gisee euh, soirée Wally waaw Wally moom daa nekk euh, suma nit tout d'abord dañu xamante bu yàgg moo tax ci lu mu nekk rek man dama ciy bokk parce que boo xoolee concert bi man ñun waa Prestige ñoo ko sponsorisé donc euh, en plus kastam bu bees bi ñu bokk ci sponsor bi donc Wally moom daal ñun ak moom euh, diggante bu yàgg la waaw moo daal toujours rek dañuy sawar di ànd ak moom quoi. merci. gisee soirée Wally Seck bi à Thiès. ah soirée bi na trop. so d'ailleurs soo gisee si biti ni mu oh. mel rek y a du monde. gaa yi ñu ngi ñëw donc euh, c' est quelque chose d' extraordinaire affaire la boo xamante ni souvent date bi li ma doon wax mooy Ablaye rek mooy date bi ñu ko ñu tëgg ko parce a mooy bégal xale yi c' est chose important autorité yi nag dañ ci jàpp eh, parce que su xale di dem pour ñefe pour dëkkam dañ ko war a jàppale te vraiment ñoom seen famille sax euh, li ñuy euh, def ci commune Thiès di ko def ci biir Thiès ñëpp xam nañ parce que soo gisee corbillard yi ñu def yooyu yëpp indi ko te may ko commune yi donc c' est euh, muy lu ma kontaan la lu ma rafetlu la et la fête soit belle. ah noo tudd. Khady Fall Gaye. noo gisee euh, concert Wally. ah macha allah neex rek vraiment moom lu mu def neex nañu. ñu def déplacement dérangement def sañ sa ba waa gis nga jàmm rek <laughs> merci. gisee concept soirée Wally bi. concert bi noo ko gisee. waaw gis naa ni vraiment c'était une très belle fête pour Thiès parce que jeunesse thiessoise dañ ko soxla on est là compte de la mairie Thiès Ouest représenter le maire parce que dafa dem euh, actuellement finale bi à mais bu ñëwee incha de day ñëw léegi pour passer une très parce que Thiès amul lu dul lii donc euh, soirée bi mel nii day bëggal population na bëggal jeunesse bi te on est là pour la commune est là pour donc on a accompagné encore une fois Ablaye Dieye di ko remercier au passage vraiment pour cette initiative parce que affaire bu rafet la je vous remercie. mbër ah waaw bien sûr mbër dina seetaan noo gisee concert Wally bi. waaw pour l'instant nii moom waaw neex na quoi public bi ñëw nañ et tamit waaw Thiès waa yëpp génn nañ quoi te lii rek lañ doon xaar ko waaye. jaajëf euh, noo gisee concert Wally waaw mais concert vraiment réussir na réussir na gis nañ cees ñëpp génn nañu di accueillir Wally Seck à bras ouvert donc ñu ci kontaan bu baax a baax ci réussite événement bi quoi waaw. Euh, waaw waaw bien sûr lii day delloo ci animation Thiès parce lii day manqué cees te buñ seen lii di ko am na chaque mois vraiment ñuy am lu mel nii loo xam dina génn Thiès waa yi ñu mën a béggee parce que xam nga rek béggee rek nañu nu moo war ko en tant que jeune ñu ñëw xam nga répondre invitation bi vraiment réussir na trop macha allah